waaw rafetlu ko rek parce que kilifa diine yi dëgg-dëgg mënuñ leen a fay euh, cheikh al islam Baye Ibrahima Niass ku nekk xam na ne liggéeyal na lislaam loo xam ne waxuma la waa Sénégal rek waaye waa àdduna bi yëpp ko amel njukkal boo génnee senegal dem Nigéria dem Soudan dem ba Saoudia Euh, tudd cheikh al islam danga xam ne kooku egg na ci ak islam foo xam ne euh, ñu bëri sax dañuy jàpp ne du sénégalais ab naar lañ koy teg parce que liggéey yaatal na lislam bi yaatal boo xam ne foogoon na ñoom ay ab naar rek ko mën a liggéey euh, mën nga ne Nigéria lañ ko gën a xamee ci Sénégal mën nga ne Soudan lañ ko gën a xamee ci Sénégal léeg-léeg nga ne Saoudi lañ ko gën a xamee ci Sénégal loolu nag li koy mayee mooy taxawaay bi mu taxawoon te gis nañu itam esprit fédéraliste bi nga xam ne moom lañ doon woote ci Afrique moom mu bokk ci ñi ko njëkk a dox parce que moom jógee na fii dëkk yooyu ma tudd yëpp jaar na fa Nigéria Soudan dem na Masra dem na feneen ak feneen fu mu mës a demit dañ ko fay wekk yëkkati fa Sénégal yëkkati fa turu Sénégal ndax taxawaayam nekkinam xam gi mu xamoon lislaam jekku gi mu jekku woon luxal arabiya ak melokaanam ci lislaam kon ku mel noonu wax dëgg yàlla dana jaadu ndaw yi tey euh, jaar ci yoonam waaye jaar ci rek doyul mais ñu taxawal bés bu mel ni sargal ko ki ko taxawal nag euh, bàyyi itam moom it si Cissé la war na koo def euh, ndax ci keppaar googu la yaroo yore turam kon ku mel noonu bu taxawalee bés bi ñun loolu tax ñu ñëw ci jàppale ko ci ngir sargal bés bi ndax jàpp nañ ne kenn ko tuddee wax dëgg yàlla jar na bés bi. lu doy waar la naka jekk man damay faral doo xam ne man sama ndaw presque maa ngi ko passé ci xeex franc-maçonnerie ay années quatre-vingt laa ko tàmbali ba tey jii musula dakk euh, franc-maçonnerie musiba mu bon la. parce que ñoom dañoo jóg pour yàq diine contre diine seen principe àndul ak diine surtout nag diine lislaam àndul ak moral itam ñaar yooyu lañuy xeex diine ak moral e eh, suñ réew mi nag dafa mel ni ruudu nañ fi eh, waaye alhamdulillah Sénégal moom dama naan dafa nekk suñu wareef rek mun ñoo bañ a jóg mooy man gëm naa ne nañu ko parce que ñoom seen bopp am na lu leen jaaxal moo tax ñu ñuy def li ñuy def ci Sénégal ndax dañu ne ñoom dañu laaj seen bopp ne lu tax ñun réew yu mel ni ay Congo ay Gabon ay feneen nit ñame faa taxaw ne man franc-maçon la te Sénégal la njëkk a duggal franc-maçonnerie Sénégal le premier homme sénégalais bi fi dugg franc-maçonnerie ñu ngi ne 1882 ca Saint-Louis la duggee ci franc-maçonnerie alors ñu ne nag réew moom lu tax tey kenn mënu fàkki ñoom dafa mel ni loolu défi la pour ñoom ñu bëgg ko relever kut ko kut mais saa yu ñëwee rek daan fekk ne. mag ñi ñekkoon nañ Sénégal ñekk boo xam ne du masa ruur loolu nag moo leen jaaxal waaye loolu defe naa ne du du du dañ man donc ci taxawaayu boobu ñu mag ñi jàngaloon rek fa laay taxaw contre la franc-maçonnerie contre lépp loo xam ne dafay yàq jikko yi contre lépp loo xam ne aussi àndul ak aada wala jikko wala diine waa Sénégal Sénégal du n'importe quel pays tax lépp luñ fi def ak képp ku fiy ñëw Euh, war nañ ko seet loolu autorité compétente lay wax parce que xam naa réew ni muy fonctionner kenn mënu la dugg def ndaje ci réew mi te jaaroo ci autorité yi ban jox la autorisation jox la visa autorité nag war nañ segg secte yi ndax secte dafa mën déstabiliser un pays réew mu mel ni Sénégal am harmonie euh, di dund ci jàmm la fi nekk ngëm-ngëm sax ba pare kenn mënatu koo dindi réew mu mel noonu bépp secte bu bees bu fiy waaj a dugg li jaadu woon mooy wër këri diine yi laaj leen ndax xam ngeen diw ndax xam ngeen lii ndax mën na dugg wala déet malheureusement duñ doxale noonu mais ku doxale ne ne nit da peuple bi moom danañ taxaw bañ ko yaakaar naa ne loolu du dañ ci Sénégal si c'est suñu rakk bu baax la ku mën a góorgóorlu ci ci lim nekk farlu ci lool preuve bi mooy lii xam nga ne ndaw loo xam ne xalaatoo def leneen lu dul euh, organiser bés bu toll nii di ko sargale cheikh al islam euh, loolu ndaw lu ambitieux moo koy def ndaw lu ambitieux nag euh, surtout sa ambition jëm ci lislaam ñun li ñu xam mooy jàppale la ca kemtalaayu sunu kàttan wax naa ko ki nga xam ne moom lu tudde bés bi it kooku bun xamutoon ki ku tudde it dégg na benn bés sàngam dañ koo jagleel cheikh al islam rek jar na nga jóg ak sa tànk dem teewe ji ci bés ba ndax ku xam cheikh al islam xam ne lu nit def ci sargal ko ci yoonu lislaam daanaka fayu ko eggul ca la mu jëf da ngay def rek li nga mën waaye moom defe naa ne def na lu ëpp loolu ci lislaam